dafa am rek lu ma bëgg a wax mu leer nañ nit daal ñaari xeet la naasu ak xawmu naasu képp ku sabab ku jëm kaw say tànk jëm suuf moom nga waaye xawmu nag moom ay màndargaa koy def ci nit màndarga yu wóor mooy tax a nekk xawmu nag nit ki waxi démbam ak jëfi tayam boo ko boolee mënoo leen a ràññale di benn nit nit a ngooga lu nekk nale di ñëw moo jara woon nit naa ko séenal ma nga nale waaye mu ngi nii moom desu ko wax mukk ko amul bët te ko amuti bët yi jot a wax ndax du gis ngeen baal ma nag ma waxtaan ak sama bopp tey <laughs> asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu yéen bokki taalibe yi maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm bëgg a waxtaan ak yéen nag ci yetti fànn gànn gi mooy sant gu ma leen sant ngërëm lu ma leen gërëm seere gu ma seere seen taxawaay ci wàllu sëñ Tuubaa loolu cant la koo xam ne mënuma leen ko ñàkk jotal ba mu leer leen nañ te amul góor amul jigéen amul mag amul ndaw ñépp laa ko boole amul kilifa amul surga ngeen gis naa ne lépp lu ñu yëkkati jëme ko ci wàllu sëñ Tuubaa seen jom rek ngeen ciy teg ak seen bakkan ak seen yéene ba loola am na mu ko bëgg kon nag googu yi cant moom mënuma leen koo ñàkk a jotal ngeen xam ne awma lenn lu ma leen di war a wax lu wax su sant leen ci li nu weesu ba ak ci toll te xam naa ne noonu laa leen di sant ci lu nu jëm nag di leen di leen xamal ni leen ah, ni nu war a àndee sëñ Tuubaa nag rek laa bëgg nu waxtaane ko ndax dama bëgg nu jëriñu addina jëriñu àllaaxira sëñ Tuubaa day lu mu am rasulullahi ko ko jox waaye daal dafa jox sa rasulullahi léppam day jëkk rasulullahi door koo defal li mu ko def ndax dafa wax ne lahu daxara ni yéeg jox naa ko sama yéene waxi wa waxit muti ak sama xam-xam ak sama liggéey wa roohi wa jusmaani ak sama ak sama yaram wa kulli nag bi la subi ak sama lépp ci lu xajati ci dara dellu wax ne lahoo hayaati wa mawti waxdahoo wa lahoo sirri wa jahri wa yuxnini bi alaati jox naa ko sama dund jox naa ko sama te dolli ma ci keneen moom dong jox naa ko it sama mbóot jox naa ko sama say loolu kon ah noonu la ñu war a àndee ak Sëñ Tuubaa ndax bu nu ne àndee ak moom li ko yonente bi defal natt lu mën a dana nu ko defal li ko yonent bi defal mooy mooy lan ab xaani yallaahu yuy muxtaari mu ci setan kama bihi li sama fawxal buraaxi sara yàlla bàyyi na ma fi man nag di kiimaam ci yonent bi ni mu fabe yonent bi teg ko ci kaw al buraax yóbbu ko ci kaw asamaan kon nag ku am ku mel noonu war mooy te la nga man nga def ko te fas yéene nag la mu am ci boroomam yooyu itam nga sàkku kon nag ñun ñii dong nga xam ne bëri ci démb la fi jóge ñu ànd nag moom bu ñoo a gaañoo ci ñoom dana ñàkk jom te ñàkk fulla waaye war na mën a am ma wëlbati ko nag waxtaan yi yéen nag yéen dong yi nga xam nag ne nooy waa kër gi yéen ñëpp ma waxtaan ñi nga xam ne yaakaaroo leen lu dul sëriñ Tuubaa mu jaral leen lu ne nga xam ne yéen a sos lépp ku ci ne tànki baayam lay dox wala tànki maamam gis naa bu baax a baax coono yi ngeen di son ngir yàlla ay yonent bi ak sëñ Tuubaa gis naa ci ñu bari ñoo xam ne nattab li wu ne bu ñu amutoon oto yu leen indi daanañu dox ak seen tànk yi coono yi ngeen fii sonn nag laa leen bëgg a leeral gisuma ci kenn gis naa ne mënul leen yàgg yegg sax ci seeni kilifa ba ñu leen ay volontaire rek fa ngeen di jaar di romb di ñëw ñoom a dem waaye bu leen ko jàppee di si na doyadal wala di si na sewal wala di si na doll ñaan gu nangu rek la ñaan gu nangu gi moo waral loolu waaye na leen wóor cëng ne xam nañu ne yéen ay waa kër gi yéen ay waa kër gi te bu si fi bari wutoon kenn du fi jaar kon nag sant leen yàlla te gërëm yàlla te yëg ne doyadaluñu leen woyofaluñu leen ñaan gi naan nangu rek te ñaan bu nangoo liggéeyal borom loolu da ngay coono bi waaye du leneen ma di leen xamal nag ci melaw adduna melaw doomu aadama loo xam ne ñun ñëpp na maas ci xam ko doomu aadama moom bind bi leen yàlla bind benn la boo ak loo bari bari daraja boo doon dem arasta ka dellu si itam boo doon dem arasta dellu si te natt bi lu wuñu ko wóor leen itam fii rek lañ lay nëb ngir xam nañ ne arasta yéen dëkk ko fa dangay dellu si te boo dellu si fii de ak koo mën a doon boo defee lu bon ñu wax ko boo feneen ñu wedd ko yal na nu yàlla saxal na ci jub te saxal na ci ak wér te yëg ne ku bëgg a mucc da ngay nekk ci lu jub ku bëgg lu baax da ngay nekk ci lu wér nan lu ci ak jub mooy suñu dimbal nan góorgóorlu ci lu wér mooy suñu sax